Yeah. na wandi fa croisement Diaroumé mi ngi noonu nous sommes en Casamance Président Ousmane Sonko ànd ak les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi السلام عليكم وأفندقاء لا ينفوفوا موسى الدين أولي أوكالفو جانومي كالفو جانومي Bundesliga, God.

Président Cheikh Youm, coordonnateur du PUR, et Salim Moustapha Si, Excellent. Président Abid Si, unité unique, terre Excellent. Madame Maïmouna Bousso, la présidente excellent. président Cheikh Tidiane Dièye borom Kopar Express yegsi na président Moussa Tine yegsi na bon Déthié Fall yegsi na alors léegi dañuy jox kàddu gi président Ousmane mu nuyu leen bu defee candidat yi bu ñu yeggee Bounkiling ñoom kàddu wax ak askan wi kon oui Khady Gueye moom fii la dëkkee à côté Khady Gueye Khady Gueye nañu bañ a wax tàccu leen ma Khady tàccu leen ma Khady moom moom léegi la ñu romb këram ça fait même pas cent mètres donc il faut mu wax fii le maire Lamine Fatou également Comme que nous ne pouvons pas nous l'honorable député Khadi Gaye Alien, nous continuer après avec le président Ousmane Sonko pour li ngeen bëggoon am ngeen ko tey maa ngi nuyu intercoalition bi ci turu Yewwi Askan Wi Wallu ma naan leen dal ak jàmm ci département de Bounkiling fii jàmm rek fi ne te tout tout Bounkiling et tout le département de Bounkiling est derrière la coalition Yewwi Askan Wi Wallu Lo ak ñoom Moutata ñoom ñëpp leen di nuyu délégation bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay coono gi métti na waaye nag lu ko jar moo ko jar te fii Madina Wandifa lépp nee nañu wàllu wàllu wàllu vive wàllu asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di fay ñu leen di nuyu ah Déthié Déthié nga problème moo soto de problème banque ko am na de waaw fi mu

xam nga tey fii ñu nekk nii bu ñu dajale woon dëkk bi yëpp ñaata habitant la monsieur le maire ñaata habitant la fii kii nee na 5000 kii ne 10000 waaye bu dee 10000 sax bu dee ci 10000 habitants à cette heure-ci te waajaluñu ko woon ñoo mën a mobiliser lii xam nga loolu dañ ko mën a comparer ak dëkk yi nga xam ne ay 1 million d' habitants la wala 600000 habitants. moo en valeur en valeur relative dafa mel suñu gaay ñoo mën de mathématiquement ah mathématiquement dëcc xam mathématicien la xam na li may wax kon yéen félicitations ak gàcce ngaalama wax ji du gudd nag ndax dinañu def déclaration bi bu ci boppam waaye gannaaw bi ñu leen remercier ba pare

Ivoiriens yi dañu tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan mais ils n'ont pas tous le même prix Oui, assemblée nationale ñi fa newoon député ci mandat bi jeex xamante nañu de kuy député xam nañ ko kuy député xam ko ku fay ngooñ nag député ngooñ xam nañ ko tamit moo il ne faut pas se tromper deux fois le pour bëgg c'est ngeen jox une majorité écrasante man ça m'a monsieur le maire je sais ni les deux députés du département de Bunkiling, incha Arabi, dimanche à 19h les deux députés du département de Bunkiling, jox nañ l'intercoalition Walu Yewi. mais pour cela pour cela un une erreur boo nous ne waru ko gis ngeen fii Bokiling ak lu ngeen bëgg bëgg bëgg Ousmane Sonko lu ngeen bëgg bëgg Yewwi Askan Wi ne touchez pas bu leen laal bulletin Yewwi Askan Wi parce que ñoom xam nañu ñàkk nañ ba pare monsieur le maire nee ma léegi seen dernier argument mooy dem naa nit ñi fii da ngeen war a jël bulletin Yewwi fii benn bulletin moo fi am mooy sama bulletin man bulletin boobu mooy bii bu jaune bi. avec la photo du président Abdoulaye Wade. Dis-moi vous que Dis-moi Si vous votez, ñaari député la benn bi ci ñun la bokk Yewwi benn bi ci Wallu la bokk Ben benn liste lañ fi am kon bu erreur il faut voter le bulletin jaune avec la photo du président Abdoulaye Wade moy bulletin Ousmane Sonko moy bulletin Khalifa Sall moy bulletin Serigne Moustapha Sy moy bulletin Fall bulletin Habib Sy bulletin Aïda Boy bulletin May Maymouna Bousso moy bulletin Cheikh bulletin Moussa Tim nit ñi ngeen Askan fi amuñu fi bulletin ngeen ci bulletins bu dee ni la ñu jógee ne le à Sédhiou Sédhiou ku fay voter bulletin bu weex bi yeewi ngay jël mom dong fi nak ku fi voter bi na j'insiste parce que la répétition est pédagogique 24 heures nag moo des ci élection bi dañu bëgg suba ngeen dem dugg ci kër yi porte à porte dem fekk maire yi ak paa yi xam nga ñoom ñëpp nag xam président Abdoulaye parce que fii nag département de Sédhiou xam ngeen ni Macky Sall ku baax depuis 11 ans lan la def fii département de Bounkiling lan la def département de Bounkiling xam ngeen ni président Ablaye Wade li mu fi def bi muy nekk fii ci 12 ans yi Macky Sall def fi la moitié. moo tax ñu leen bulletin bii mooy bulletin bu baax bi ci des nag ñu leen koy ñaan particulièrement les jeunes. vous avez 48 heures modestes pour aller retirer les cartes nationales d'identité jusqu'au 30, jusqu'à samedi à minuit. Donc, ngir vous pouvez ko jëloo ko dem deuxièmement sortez voter massivement et troisièmement dem leen taxaw ci bureau de vote yi ngeen sécuriser vote su vous wóolu ngeen am ngeen yaakaar ci ñun gëm changer réew def partout, forum notre part du combat. À la barca, à nous malins, salam alaikum. Carrefour Jarume Medina Wandifa ñongi dem uh, ba ci kanam Bunkiling ki nous attend Bunkiling on arrive